lamp yi ngeen di gis ni toog nañu lu weesu juróomi at yoo xam ne tàkkuñu loole sax waral ba askan wi yëkkati ay kàddoom naxarlu taxawaay googe waaye tamit ak njàqare goo xam ne soqeekoo na ci ñàkkaarange bi muy jur ba waral nag municipalité bu Touba amal opération yoo xam ne dem na ci indiwaat leeraay rawatina ci yoon yi nga xam ne ñoo gën a yaatu ci biir dëkk bi. fan dégg nit ñi di coow ci rajo yi ak wax ne route de Guédé bi route de allié bi ak yenn certaines routes ci biir dëkk bi tàkkut loolu maire bi waxoon ne nag dana ci jóg taal ko boobu ba léegi mu nekk ci commune bi jël ay moyens jël léppam daal di koy teg jël nit jox ko ko ñu jël ku ñu wax suñ Moussa Thioune mu bokk ci conseil maire bi jox ko ko mu ànd ko équipe bu maire bi ngir ñu fas yéene lépp loo xam ne làmp la ci nekk bi dëkk bi ci am aju ci maire bi maire bi fas yéene taal loolu liggéey yooyu nag euh, soxal na rawatina yoon yi jëm caaween héliport héliport gaaru routière bu Mbàkke waaye itam héliport Mbàkke waaye itam héliport rond point Mbàkke rond point Mbàkke jëm jumaay Tuuba niki noonu yoonu belel jaare ko ca Daaru Xudóos waaye itam yoon wi nga xam ne moo lëkkale jumaa ju mag ji ak quartier bii di Hizbut Tarqiyyah ñi ngi tàmbalee waat bu démb barki démb ci poste gendarmerie bu belel bi fii ci allié ji jëm nii fa ñi ngi waaj ak cornis yooyu daal mooy yi nga xam si ne bokk na ci si yi nga ne cité nañ ko fépp fuñ ci romb nag yaakaar naa ne leer na nañ ndax gis nañ ne dëkk bi dafa am côté yoo xam ne dafa lëndëm te defe naa ne leeraay dafa bokk ci wàllu sécurité. ci biir liggéey bi nag électriciens yi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi nemmeeku nañ ci ay jafe-jafe. ci jiitu mooy problème mu câble yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dagg moo xam kuy def teewoo ndox la moo xam même entreprise yi nga xam ne. ñi ngi liggéey ci biir dëkk bi parce que route de Guédé euh, noonu la demee daanaka sensé nañ fi lu mat juróomi kaabal yoo xam ne bii ne ñi nga xam ne ñooy def assainissement bi ak ñi nga xam ne ñooy defar foosi kër yi ñoo ko dagg loolu nag lu xam ne vraiment suñ ko mënee moytu euh, mooy li gën ndax câble biñ ci def 4 fois 25 lañ ciy def te câble bu cher la ñaareel bi it kaabal euh, bu xasee dagg éclairage public bi mën nañ ne lépp day am problème parce que day am bouclage te bu xasee am bouclage fenn dootu tàkk. dolliku na ci jafe-jafe yooyee sàcc gi nga xam ne des na ko sàcc lenn ci éléments yi nga xam ne bokk nañ ci dispositif lampadaire yi ak i tamit yàqute yi nga xam ne dina soqeekoo ginnaaw accident yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci yoon yi. indi woon jafe-jafe yi rek ñu bëri defe ne ay pile la bu doonoon pile taal nañ ko yàgg câble yi nga xam ne ñoo relais woon affaire yi câble moo am problème loolu itam ñu ngi ci ñaan nit ñi nit bu koy gasati ba gis câble bi wala nga gis ab euh, grillage bu xonq wala bu bëla xamal ni fii daa am lu fi nekk nga éviter ko ñàkkum leeraay gi nag waral na ñàkkum kaaraange fës lool ci gox goxaati fasantikoo ci biir dëkk bi ba waral askan bi am ay jafe-jafe ginnaaw sàcc gi ñu nemmeeku agression ba ci sax ay cambriolage lu bokkut ak jéego bi nga xamee nag mairie bu Touba def na ko kuréel gii di Touba ca kanam nga xam ne moo ngi aju ci addiya yi nga xam ne taalibe murit des na ko joxe saa su nekk yëkkati na ci liggéey bi mu doon def atum 2020 lu yemoo ko ñetti junni lampadaire ak support yi ñuy àndal ñu xayma ko ci juróom-ñaar fukk ak juróomi million suñuy koppar ngir rek dugal ay loxoom ci leeral dëkk bi rawatina ci quartier yi nga xam ne nag ñoo féete biir rocade bi ak i tamit ci biti looy nag di dugg ci jéego bi nga xam ne duppee woon nañ ko opération leeral Touba